Jamal Corporation Suarel di spécialiste en vente de terrain location immobilière travaux publics nekk ci diwaanu Sénégal waaye ay banqaasam wër àdduna moo xam yaa ngi Gambie Mauritanie Mali ak bépp dëkk bu nekk ci sous-région ak foo munti nekk ci quatorze régions yi terrain ak foo ko bëgg ñu jaay la ko tabaxal la ko lijjanti ko mu ànd ak ay këyitam ba mu yem këyitu leer nag laa wax soo bëggee ñu defal la sa plan béton armé béton armé 3D 2D terrassement ci boo ko bëggee yow daal ko jox la sa ay caabi defal la étude de sol ndax ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wi ñoo fi nekk defaral la sa projet gunge la ba nga am financement ndax jàmmal corporation Suarel dafa ànd ak équipe bu complète ay plombier menuisier bois menuisier aluminium ay maçon ay peintre ginnaaw bëgg a confier sa liggéey keneen te amoo ci lu la neex soo ko ak ñun ñu modifier la ko ba mu mel na la gënal plan ak noo ko bëggee defal la béton armé foo ko bëgg ci sous bi dañ la koy taxaw ñuy tabax ay jàkka juma école wala daara ñu ngi leen di tàllal suñu ay loxo ci marché projet ak programme bu ngeen munti am di la jox sa ay caabi ci délai bi ñu waxante ak yow ñoo ngi fii ci diwaanu Mbour château d'honneur ci ginnaaw tribunal bi nga mën ñoo woo ci 77 034 26 90 76 300 00 84 wala ci 77 289 45 45 wala yow mi am sa suuf te mu nekk ci bërëb bu commercial te amoo moyen yoo ko tabaxee daan ci waxtaan tabaxal la ko ba nga mën caa dëkk ginnaaw bañ ko waxtaanee ba signé ko ci ay contrat lii daal fii rek la am ci Sénégal ñu yore seeni kër wóolu leen ci di leen ko dénk ci wàllu location yow mi nekk bitim réew li nga doon xalaat du ay gént mën naa nekk ci boo jokkoo ak waa groupe Jamal Corporation Suarel yow mi bëgg ay tool ngir mën a bay ak foo bëgg ci Sénégal dañ la koy lijjantil ànd ak équipe bu complète ci ay technicien bâtiment ay ingénieur di taxawu liggéey bi ni muy dooree ba nañ lay joxe sa caabi solution ci tabax ak bâtiment ci Sénégal ak sous bi mooy groupe Jamal Corporation Suarel. wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi. wal aaqibatu lil muttaqin was salaatu was salaamu ala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 waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee suñu borom ci ay xéewalam di julli si yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi am mbégte di teewaat ak yéen war leen présenter suñu émission bi nga xam ne moom la ñuy faral di leen indil di ci dalalaale ki nga xam ne moom mooy suñu consultant mooy al imaam Alioune Badara Ndao tey nag ñu war a waxtaane maanaam xew-xew boo xam ne mën nañ wax ni mu ngi bëgg a yàgg ndax ñu bari ñu ngi ciy wax waaye tey nag euh, al imam dafa bëgg dañu bëgg mu defal ñu ay jàngat ay commentaire analyse yoo xam ne au delà sax de li ci nit ñi di wax maanaam loo xam ne nit ñi dinañ xam exactement maanaam mbir mi lan moo ko tax a jóg ci loolu moo tax tey ñu dalalaat al imam mbur ngir mu war ñu defal jàngat yooyu xam naa balaa ñu si dugg dañuy tatagal al ñu bàyyi ko mu nuyoo ñuy soog a dugg ci liggéey bi al imam bismillah euh, alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa rahima wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain asalaamu aleykum wa euh, ñu ngi leen di nuyuwaat di nuyu sëñ ci xarala gi mm-hmm. di nuyu waa adduna yëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp seen bi di Fafa TV di leen ñaanal jàmm ak fuñ ñu mën a nekk di ñaan suñu borom subhanahu wa taala def jàmm ci àdduna bi eh, indi fi njub dénd bi buy feebar yi yëpp yàlla na suñu borom saaf bi buy feebar yëpp yàlla na suñu borom saafara leen ñi nga xam ne yéen ñoo nekk ci ay xat-xat suñu borom yërele leen tukkikat yi suñ borom yembal la leen taxoon a jóg te yombal ko ñu dellu si waat ànd ak mànga kon suñ baaba ñu ngi lay delloo kaddu yi. jër jëf al imaam chers téléspectateurs comme niñ leen ko waxee léegi rek tey dañoo bëgg dellusiwaat li ci li nga xam ne moom mooy xew-xew bi nga xam ni moom moo am ci Dubaay al imam war ñu si defal ay jàngat xam naa li ñuy njëkk laaj rek mooy imaam jamono yi yëpp ñu ngi dégg maanaam ay xew-xew yoo xam ne mën nañ ci wax ay ñaawteef yoo xam ne maanaam dañ ko dégg ci réew ma la ñuy wax réewu Dubaay nga xam ne mën nañ wax ne ay naar ñoo fa dëkkee hmm. waaye xam naa imaam ñun balaa ñuy egsi ci xew-xew bi sax ñun hmm. bëggoon nañ xam maanaam li nga xam ne moom mooy historique gu Dubaay Dubaay fan la soqeekoo maanaam lan mooy historique am dëgg-dëgg ak lan mooy Dubaay euh, sëñ laaj bu am solo la ndax danañu delloo ñu mën a xam exactement lan mooy Dubai ak lan mooy historique gu Dubai. Mhm. xam ko lu am solo la. Mhm. su boobaa dana la yombalal nga mën a xam yi nu fay wax naka la bindoo. Mhm. Dubai mën nañu wax ne am réew la. wala boog ab dëkk la bu bokk ak yeneeni dëkk yu xaw a takku boole seen bopp ci gannaaw histoire bu yàgg nag waaye mu mujj nañ daal àgg ci mën a boole seen boppu fas yéene dund ensemble euh, Dubaï nag benn nekk ca benn moo tax ñu koy tuddee les Émirats arabes unis boo déggee arab uni rek da ngay xam ne kon ay émirat yu bari la yoo xam ne dañoo mujj booloo fas yéenee dund ci déggoo ak jàmmoo émirat arab uni boobu lu am histoire la ndax l'islam kenn mënta topp na histoire bi lépp lépp lépp ba tey ndax dafa bari waaye mën nañ koo xaaj rek wane ne Dubai boobu nga laaj kenn la ci juróom-ñaari dëkk walla juróom-ñaari imara yi tuddee al imaratul arabiyatul muttahida boole seen boppu fas yéene dund ensemble émirat arab uni boobu nag mën nañ wax ne depuis mille neuf cent soixante lañu am seen l'indépendance yor seen réewum bopp la ko jiitu woon léegoo léeg daan nañ juboo léegoo léeg ñu booloo léegoo léeg ñu xaajaloo ak ceddo yàgg na fa laata lislaam di fa ñëw ak ceddo moo fa nekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir wooteem la euh, dawla islam yaatu état islamique bi jiite woon yaatu ba agsi foofu ci tund woowu ñu ñuy tuddee tey al imaratul arabiyatul muttahida ba mu ñëwee fekkoon na fa ay euh, qabail mutanasira maanaam ay euh, giir yoo xam ne dañoo séparé woon waaye ñoom ñëpp nag ñu ngi doon dund ci ron noteelu Euh, persan yi léego léeg léegoo léeg itam romain yi muy byzantin yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu fa dugalee lislaam nguur yooyu mu fa fekkoon dañoo daal di fay nga xam ne kon ceddo la fa fekkoon ñu bàyyi xel loolu ceddo a nag biñ demee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam faatu dafa dellu siwaat ak force dellu siwaat ak doole arab ya fa nekkoon mën nañoo wax ne daanaka ñu ca gën a bëri dañoo murtat dellu siwaat ci seen dundu ceddo loolu mu ngi am ci jamonoy Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu moo tax mu teel faa yónnee lenn ci saxaaba yi pour ñu delloo si waat fa lislaam bokk na ci ñëm fa njëkk yónni mooy Amru bnul Aas bi muy dem mu ngi jaar Oman jaar Suxaar waaye mu dellu yónni beneen saxaabi yu boo xam ne moom itam ci mujaahiduuna yi la bokkoon ñu ko doon tuddee Abul Ala al Hadrami kooku it bi ñëw mu ngi jaaree Bahrain ñoom ñaar nag fuñ fi romb rek suñ borom subhanahu wa taala ubbilaat na leen xoli jaam ña ñu mën faa dugalaat lislaam ah, bi nga xamante ne nag murtad googu am na abu bakar ni siddiq radiallahu taala anhu jóg defaat liggéey boobu mu fa defaat ka nga xam ne moo sàkku woon liggéey boobu Aboubacrine Siddiq radiallahu taala anhu doon def mooy euh, benn buur ca seen buur ya boo xam ne lislaam nekkoon na ca xol ba waaw moom mosul mosul nangu ak ceddo dellu siwaat fa moo tax bi mu yónnee ci Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu taala anhu Abu Bakr ko daal di wallu ci ñetti lël yu mag lël mooy armée benn bi Ikramatu ibnu Abi Jahlin jiite ko ñaareel bi Huzayfatu ibnu Mihsan jiite ko albariqi ñetteel bi Arfajatu jiite ko moom itam albariqi ñetti lël yooyu yëpp nag ñoo àggandoor ci dëkk bu ñuy tuddee Duba. Duba lañ ko doon wax ci jamono booba. Duba mm, Duba. Duba waaye ñu ne mooy Dubai tey. Ah, jamono boobu ki jiite woon murtat dune yi maanaam ñi nga xam ne dañoo murtat delluwaat ci ceddo ñu ngi ko doon tuddee laqit ibnu malik bi mu jàmmaarloog lalu Abu Bakr ni Siddiqi radiyallahu taala anhu gis ne lott na ci mën a jàmmaarloog ñoom la daw eh, lislaam jëlaat palaas ba ay Bahrayn nekk Yaman ak ñoom ñëpp alhamdulilah ci gàttal dellu siwaat ci lislaam ci kerug lislaam lislaam sax na fa ba ci jamonoy umawi yuuna yi kon yàgg na fa lool foofu nag nga xam ne mooy al imaratul arabiyatul mutahida naka jekk dafa am solo su am solo ci adduna bi euh, ngir fi mu occupé géographiquement dafa di barab boo xam ne réew yu mag yi yëpp ñoo koy soxla euh, ci seen jaaruwaay ak seen commerce ci gàttal bàyyiwuñu lislaam mu mën faa sax ci anam gu dal ndax nee naa la cee doo ko sañcoon moo fa jiitu woon lislaam ñëw na di jëlee fa ca doga yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatu na murtad ñëwaat na jëleewaat fa lislaam abubakrin siddiq radiallahu taala anhu ci ndimbalal suñ borom jëleewaat fa ceddo ga sampaat fa lislaam ñi nga xam ne nag ñoo ñooy européens yi ñu yàgg am bët lañ maanaam bët bët bëtub ñeete waaw <coughs> ci dëkk bi ci dëkk ba muy tund ba lan moo tax imam xanaa waaw stratégiquement mhm. dafa di ne fa la euh, yoonu ndox wi romb buñ bëggee dem Inde ñu bëggee dem Chine pour defi seen commerce yoon boobu mooy bi gën a gaaw pour ñoom dem Inde ñëwaat mhm. moo tax gannaaw bu lislaam néewaatee doole ci jamonoy abbasi yu ne yi européens yi dañoo ñëwaat ña fa jiitu mooy portugais yi dellu ko waat occupé daanaka mën nañ wax sax ne xaw a raafal barab ba def fa ay jëf yoo xam ne jëf yu jëf yu jëf yu sauvage la mën nga cee jàpp lu mel ni mille quatre cent quatre-vingt-huit euh, jàppante nañu fa ay jàppante yoo xam ne yu yu taratar la ñoom portugais yi ak arab yi euh, ci dogalub suñ borom ñu am ndam ci kaw arab yi delloowaat ko ci seen moomeel ñoom muy mille quatre cent quatre-vingt-huit fa nekk fa lañ nekk ba mille cinq cent six mhm. gannaaw portugais yi encore eh, anglais yi dañoo ñëw ñoom ak français yeeg hollandais yi xëccoo koog ñoom ba mujj fa génne portugais yi defaat ko seen moomeel waaw anglais yi mel ni barab ba seenu barab la ñoo ko jiite moo tax yàgg nañ fa trop ba ay mille six cent vingt cinq waaw mille cent vingt quatre mille six cent vingt cinq bokk la ñu ko jël ba mille sept cent quarante et arab yi di lu réorganisé wu waat leen doole jëlee leen fa euh, occupé waat barab ba ba mille huit cent trois kon gis ngeen ne xëccoo la. ngoog. bi ñëwee nag ba mille 1853 la anglais yi gis ne mënuñu jël barab bi ci force ñu jàmmoog ñoom tëral li ñuy tuddee trêve mooy dund ci jàmm. wéer gànnaay yi. ci gàttal xëccoo yooyu ñoo fa nekk ñoo fa nekk ñoo fa nekk ba 1870. ndax histoire bi lépp kenn mënu ko wax. macha allah ba mille neuf cent soixante onze yëpp ngem nga baal ma. Mhm. Eh, ci la réew yooyu am li ñuy tuddee seen l'indépendance. Mhm. mille neuf cent soixante onze yàggul. la ko commencé nag mille neuf cent soixante onze. ba fii ñu toog moom la ñuy tuddee al marxalatul hadisa mhm. maanaam mooy jamono yii nga xam ne tey mën nañ ko tuddee ne mooy jamono yu yu moderne yi. moderne les temps modernes. les temps modernes. Mhm. temps moderne boobu nag dafa may européens yi ñu ñëwaat ak doole. Mhm. waaw ñëwaat ak doole. Mhm. moo tax tey ci ay estimation ci seen population dañuy estimer li mu immigré yi mu ci façon boo xam ne bu ñu la ko waxee sax mën na la jaaxal. xam naa imaam balaa ñuy ñëw ci loolu sax. maanaam imaam pour résumer li nga wax bu ñu la déggee maanaam ci historique gu Dubaï ak Dubaï hmm. lan moo ko waral. Hmm. kon ci résumé zone bi yëpp zone bi yëpp sax waaw. mu ngi noonu zone bi émirat bi Dubaï nekk ci benn. Dubaï nekk ci benn. Hmm. effectivement maanaam Dubaï kon benn la ci maanaam ay dëkk yoo xam ne. ñoom ñoo def li ñuy wax émirats arabes unis. exactement mu ngi noonu kon buñ la déggee. mel na ni ñoom ay dëkku lislaam woon. lañu woon. waaye lii nga xam ne moom mooy. puissance occidentale yi mën nañ ko wax en tout cas mën nañ wax ñi nga xam ne nekkuñu maanaam ay jullit mhm. dañ xëy na dafa am lu ñu fa gis waaw ñu bëgg xëccoo ak jullit yi mu nekk un éternel maanaam combat xëccoo entre ñoom ak jullit yi mhm. ndax amaan na maanaam richesse bu ñu fa gis mhm. effectivement léegi kon imaam loolu moo ñuy permettre xam naa ñu ah. dugg suñu laaj bi nga xam ni mooy lan mooy situation maanaam actuelle dëkk bi maanaam actuellement nii Dubaï lan mooy situation bi ak wala am na ñeneen nga bë joxaale ñu maanaam lépp li nga xam ne mooy statique situation wu Dubaï actuellement. jërëjëf sëñ Bamba euh, daanaka xawoon naa ci commencé sax dugg. mu ngi noonu waaye heureusement <laughs> comme. macha allah nga ni nga ko defee noonu la gënee sax. mu nekk laaju boppam. ndax ñu bari buñ ñu nee Dubaï rek. Mhm. wala ñu ne Émirats arabes unis. Mhm. seen xel li muy njëkk a jàpp mooy réewu naar la. réewu naar la. effectivement naar ya ñoo fay cosaan. Mhm, ñoo fay cosaan. ñu bëri li ñuy jàpp mooy ay jullit rek fa dëkk. Mhm. déedéet ñun ñoo leen ëpp nombre jullit. <laughs> waaw waaw ñoo leen ëpp nombre jullit. Ah, maanaam ñun jàppoon nañ ne maanaam Dubaï bu ñu waxee Dubaï maanaam daanaka sax mën nañu wax cent pour cent population bi. ay jullit ñu bëri nag noonu lañ ko jàppee. Ah. mais sori na ko. macha allah. moo tax léegi ba laaj bii nga laaj muy seen situation actuelle. Ah. laaj bu am solo la sëñ Bamba. macha allah dañuy wax ne ñi nga xam ne ñooy doxandéem ya mm-hmm. bëri nañ fa lool. Mm-hmm. ndax bu ñu demee ba ci deux mille quinze mm-hmm. statistiques yi nga xam ne def nañ ko fa génne nañ ñaari chiffre bii bii dañ ne quatre vingt huit virgule quatre pour cent ci population bi eh, ay immigré la ñu. Ah, waaw waaw ay muudu ay doxandeem la ñu. ay doxandeem yoo xam nag ñëw nañu ñu yaatal leen fa. Mhm. ñu dëkk fa ñëw seen njaboot. waaye ci wàllu euh, ONU ñoom seen statistiques yi liñ génne mooy. Mhm. quatre vingt dix pour cent. quatre vingt dix pour cent. yëpp ay doxandeem la ñu. ay doxandeem bii daf ne quatre vingt benn 90. benn 90 ñoom ñaar sorewuñu. sorewuñu kay. li nga ciy déggee mooy ah kon ñii eh, askan wi doxandéem yi am nañ fa doole lool fa la lool sax mën nañ la ko won nag ci benn tableau bu gàtt boo xam ne. Ah, ci lañ mën nañ cee eh, séddale population yi. d'accord. ndax nee nañu en lu jëm ci quatre cent mille ba cinq cent mille personnes mhm. ay immigré chinois chinoise la ñu. immigré waaw mu ngi noonu. quatre cent mille. quatre cent mille. Mhm. ci ñi fa dëkkee. ci ñi fa dëkkee ak ay chinois lañ. ay chinois xam nga kon chinois yu bëri nañ fa. te chinois ñaare ñi ci gën a bëri duñ ay jullit. ci lu Mm-hmm. moo tax ñaa nombre ña fa nekkul ay jullit commencé di bëri. tout loolu muy benn. Mm-hmm. ñi nga xam ne itam ñoo fa nekk ay palestiniens ñu ngi leen di estimer mm-hmm. ci deux cent mille personnes. deux cent mille personnes yoo xam ne ña ngi leen fa fat ñi nga xam ne ay sud africain lañu. ñu ngi leen di estimer ci cent cinquante mille personnes noonu nga koy toppee ba agsi ci ñi nga xam ne eh, yeneeni askan lañu am na benn tableau bu ndaw bu nekk nii boo xam ne ñu ngi ko tiim moom da koo génnee population yi nga xam ne mooy total bi ci Émirats arab unis ne ñi nga xam ne ñooy nombre totalu émigré yi dem na ci huit millions Euh, quatre-vingt-quinze mille cent vingt-six personnes. huit millions quatre-vingt-quinze ci peuple boo xam ne neuf millions lañ cent cinquante-six mille neuf cent soixante-trois personnes. kon loolu saxal na ne réew mi doxandéem yaa fa ëpp. nombre kon ba ëpp ñu fa doole. mu ngi e-, am nañ fa. 3 millions 944 3 euh, millions 498 mille 337 indi yi rek. indi yi te indi xeet bu bëri ñoom itam ay yëfar lañu. maanaam am nañu am nañu ay jullit waaye ñu bëri ay ñu nekkul ay jullit lañu. égyptiens yi am nañ fa lu man 935 mille 308 personnes. ba Bangladesh yi. Mm-hmm. am nañ fa lu man 906 mille 400. quatre-vingt-trois yi ñoom itam kazalika huit cent soixante mille huit cent cinquante-huit ah Philippines yi dem nañu fa ñoom itam cinq cent cinquante-cinq mille sept cent quatre personnes ci gàttal mënuñoo génne table bi yëpp. tout à fait waaye dama la bëggoon a war rek ne. Mhm. ña dul euh, ay cosaan ca réew ma. ca réew ma lii nag Bamba nga xam ko. Mhm. maanaam ñu ñu bokk ko xam. day am solo. torop ci li nga xam ne moo tax a jóg waxtaan wi tey. ci lu wér imaam. maanaam imaam lii sax moo ñuy permettre. maanaam euh, euh, buñ ko mënee résumé. Mhm. maanaam kon mel na ni Dubaï. Mhm. buñ koy xool. Mhm. maanaam ñi fa ëpp jamono jii nii. maanaam duñu ay naar sax. ba ay nit balaa sax ay nit yoo xam ne sax fa lañ dëkk. te. Euh, Imaam xëy na loolu moo ñuy permettre kon xëy na ñu dugg si suñu laaj bi ñu doon ñëw. mooy li nga xam ne mooy xew-xew bi nga xam ne moom la ñuy dégg Dubaay Dubaay. Mm-hmm. muy maanaam li nga xam ne ay ñaawteef. kon xam naa sax balaa xëy na balaa ngay toon sax li ku dégg maanaam Imaam statistique yi nga wax. Mm-hmm. moom dina jàpp ne kon bu dee nit ku normal nga sax war nga wax ni sax ni ah lii kon xëy na warul bett kenn. waaye buñ la bàyyee ak sa jàngat rek. Ah. mooy xew yi nga xam ne moom la ñuy dégg Dubaay. Mm-hmm. imaam naka la demee ak lan moo ko waral. xew-xew yi sëñ Bamba gis nga Dubai <coughs> population bëri te suuf bi it na xaw na yaatu tuuti bëri na njëriñ ah, xeetu njëriñ bu nekk rek sëñ Bamba jàppal ne ma nga fa. ma nga Dubai ma nga nga Abu Dhabi ma ngi ci eh, émirats arabes unis hmm. moom laa moom laa doon junj ci suñu xutba ne ni nga gisee ñun ñu am ay Fatima Fatima. ak ay Moodu Moodu. Mhm. yuy jógee fii dem Europe ñii dem Asie ñii dem feneen di wuti. Mhm. gis nga ñun dañoo wuteeg Dubai ndax fii Moodu Moodu yi fii bàyyi ko mhm. dem Europe yóbbuñ force yóbbuñ kattan. ñoom dañuy wuti ndax dañ leen a bundu xataal ci seeni réew xañ leen àq ci seeni réew jëfeel am xëy ci seeni réew. ba loolu moo leen tax a jóg ak néew doole ndeysaan ñii lu dajale ba am ñaari million ñetti million tukki kon ñooñu bu demee ci am réew nuñ fa def benn influence amuñ kàttan amuñ kàttan luñ fa defee benn eh, pression ca kaw ñañ fekki Dubaï nag ñoom amuñ chance boobu maanaam Émirats arabes unis mhm. ñii di moodu moodu ji foofa mhm. xaw ma Moodu Moodu laa koy tuddee walla nu ko gaa yi tuddee. Uh-huh. waaw maanaam daal ñii di Europe Europe ji foofa. waaw <laughs> wala ñii di Dubai Dubai lu ji foofa. ay borom yu doole lañ. Ah. maanaam ay nit yu am lañ. ba pare yu kattanu yu kattanu maanaam. ci wàllum puissance wàllum ah. organisation soog a dem Dubai. door dem Dubai. kon ñoom bu ñu déggee dafa mel ni dafa am lu leen fa yóbbu kon. dafa am lu leen fa yóbbu. d'accord ñoom dañu dem Dubai. comme ay investisseur ndax xam nañ ne du bay capital la économique boo xam ne tey marché la mondial euh, fu neex a la te ñoom fu seen alal yokkoo doo ngi la ñuy wut ah ñu nekkoon moodu moodu ga ca Dubaï wala ga ca euh, Émirats arab uni bokkul ak suñ moodu moodu gii bàyyi ko Afrique dem Europe moodu moodu gii ci Dubai nag dañuy am kattan kon dañuy am influence dañu am ñaari kattan yëpp nag kattanu xam-xam dañ koy am ay scientifique ñoo ñoo ñoo ñoo immigré dem foofa yo ak kattanu alal ñaar nag muy kattanu xam-xam ak kattanu alal moo leen permettre bañ demee lépp loo xam ne richesse la bu nekkoon ci suufu Dubai wala suufu euh, émirats arab uni seen xam-xam permettre leen ñu mën leen ko exploiter transformer leen ko moo tax dañ fa am influence te gis nga malheureusement euh, jëlal misaal rek ci Sénégal gi maa ngi doon dégg euh, ñoom Clédor Sène ak ñoom Sonko di wax ne. suñ pétrole bii buñ amul sens gars yi ñëw di ñu ko jukkil eh, téeméer buñ jukki ci ay bërigo buñ amul sens juróom-ñett fukk ba juróom yëpp jukkikat wëggkat bee koy moom seen ndab lañuy sotti. seen ndab la ñuy léegi li wadd li wadd ñu defal ñu bàyyee ñu ko ñu bàyyee ko. waa duñ def noonu du bay doy <laughs> bu fekkee ne bañ demee Dubai nii nu def. <laughs> Eh, africains yi ci seeni i eh, mbell. <laughs> na lañ def eh, Dubai ci seen mbell yu bëri ya. xamal ne foofa moom lañ fay jële ëpp na fuuf la ca doomi Dubai ya di am. su boobaa kon ruwaay dëgg la am nañ kattan askan wa bariwul ñoom ñëpp riche am nañ richesse fa tabaarakallah waaye nag jàmbur ya yee ñëw di moodu moodu si ñoo leen ëpp kattan. lii la bëggoon ñu génne ko comme benn tomb. macha allah. Mhm. gannaaw loolu mhm. maa ngi doon wax ne Dubai wala boog Émirats arabes unis dañu am benn mantiqa xurra maanaam benn espace libre boo xam ne investisseur yëpp dañu ñëw ñu daggal leen ay ponkali domaine ñu samp seeni industrie samp seen commerce samp seeni comptoir samp seeni hôtel nga xam ne ñoom la ci seen biir domaine yooyu ñoom ñoo ko occupé am liberté total nag e ci ron keppaaru li ñuy tuddee droit international bi nga xam ne ci la ñuy mbubboo moom la ñuy mbubboo am sañ-sañu lépp lu dëppoog seen bànneexu bakkan rek am nañ sañ-sañu def ko ci baatub li ñuy tuddee e, liberté liberté sexuelle mhm. euh, liberté de croyance mhm. xeeti liberté yi nag ba mu jeex liberté yooyu moo leen permettre seen hôtel yooyu lépp loo xam ne mu ngi xew ci suñ hôtel yi Sénégal yii lu ko raw mu ngay xew foofa problème bi lii la sëñ Bamba ko defee nag mhm. bu boobaa du jombe du nekk lu njombe ñu ne ah français fa nekk kat waroon naa laa waxal sax la fa français yi am ci population ak anglais ak israélien yi <laughs> ñoom itam lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci population lañ fa am seen influence yaatu te xam nga ne israélien ñoom fu ñu taxaw moom seen i taxaw na seen i bar taxaw na seen i hôtel taxaw na seen lépp lépp lépp loo xam ne rek fu ñuy defee mm, lu lu bakkane la taxaw na loolaa waral na nga gis ñennat ci ay soxna yu sàggan di mën a jot ay invitation ne dañuy dem Dubai bàyyi ko fu nag ci àdduna bi dañu yaakaar ne Afrique rek la déedéet dañuy bàyyi ko Asie bàyyi ko Europe bàyyi ko partout dans le monde di dem Dubai ci ay invitation waaye ñu rek ñun euh, bi niñ ko déggee mm-hmm. maanaam ay naar lañu mhm. wax ni mhm. maanaam ñu ne amaana xëy na ñoom ñooy jëf maanaam ñaawtee yooyu ñaawteef yi te maanaam euh, dama jàpp ne liñ parce que xëy na naar boo waxee naar rek maanaam mhm. dafay am tuuti connotation maanaam ak léegi kon imam xanaa bokk kon soit maanaam njombe yi nga xam ne naar yi moom lañ def loolu kese lañ wane wala xëy na ñoom loolu seen stratégie wala nu mu demee maanaam lan moo tax maanaam ñu fësal ni naar yi rek ñoom ñoo daan def lu bon voilà sëñ Bàmba loolu lu am solo la ñu war ci tontu. naar ya ñoo fay cosaan. moo tax l'influence arabe moo présente partout ci li nga xam ne tey mooy euh, population bi. mu ngi mel ni rek wolof bayre bi mu am fii ci Sénégal nga xam ne làmmiñam moom la ñuy wax daanaka ci réew mi. boo ñëwee Ndakaaru uh-huh. uh, Thiès région boo dem rek da ngay fekk ñuy wax wolof uh-huh. noonu laa la ko mën a joxee ci misaal. macha allah ndax day tekki ne Sénégal ay na ay wolof rek fa dëkk déedéet. déedéet bu ko defee nag fee itam comme cosaan ya ay arab lañu seen langue moo am influence moo dominé. moo tax ku ñëw di moodu moodu si rek uh-huh. dana jàng làkku réew ma ba mën caa débrouiller mën caa doxal am ab ab liggéeyam bu français bi ñëwee dana débrouiller ba mën a wax arab bu euh, Bangladesh bi ñëwee dana débrouiller ba mën Inde bi noonu indien bi pakistanais bi israélien bi américain bi bu ñëwee day débrouiller ba mën a wax arab fi mu ne nii sunu mbokki sénégalais yee fa dem ku ne day commencé débrouiller di jëm a wax arab <laughs> waaw ndax arab moo nekk langue ba nga xam ne moo fa gën a siiw moo tax ñu bëri ci ñun di jàpp di wax ne naar yi parce que dañuy wax naar waaye wan naa la léegi pour pourcentage bañ fa am bu tuuti la passé wuñ fa maximum euh, onze virgule cinq pour cent <laughs> kon ñooñu mhm. bëri wuñ fa sénégalaise bi fa dem nag kii wax ak moom di débrouiller di wax naar moom it muy débrouiller di wax naar pour mën a doxal business am moom danaan naar ba te itam sénégalais yi ñu bëri mënuñoo xàmmee naar ak sinu maanaam sinu maanaam ci indien bi ak iranien bi bengal bi mënuñ leen a xàmmee seen der dañu niroo waaw ak taji yi kenn xamul nuñ toll loolu tax ñoom naar ba rek la ñuy wax israélien bi sax mënuñ koo xàmmee ak naar bi boobaa nag su fekkente ne da nga am invitation benn milliardaire israélien invité la ci benn hôtelam te xam nga ne foofu ñooñu dañuy def njabar dafa mel ni nodd mën nañ taxaw foofu ñu ngi doon wax ne ñoom dañuy def njabar. bu ñëwee na commencé foofu incha allah mottali. li des ci émission bi. Euh, alhamdulilah rabbil alamin bi ñuy julli ji ñu ngi taxaw la woon doon wax ne loolu ñuy tuddee njabar dafa am relation ak. Euh, xew-xew yi ñuy dégg léegoo léeg ci ay barab day am fii Sénégal day am feneen ak feneen ak feneen kon mën naa am ci Dubai mën naa am feneen fu dul ci Dubai njaber mbirum iblis la ak ñi ànd ak iblis te ragal naa relation bi dox diggante iblis ak la franc-maçonnerie mondiale umpul kenn te la franc-maçonnerie mondiale boobu moom laa la wax ne la ñoo yor xam-xam bi daanaka tey ci àdduna bi yor yor itam am-am bi lépp luy wàllu industrie dañ ko dañ ko xaw a dominer lépp lu wàcc jëm ci wàllu bank ñu dominer ko iblis moomu nag ñu àndal. da leen di defloo ay jëf yoo xam ne mooy jëf ya gën a ñaaw ni ko Iblis waatee woon diggante mag ah, doom aadama yi ne dana leen ko dana leen ca jaarloo ci ay xeetu ñaawteef ba tey jii moom ca la ne loolu laa waral léegoo léeg nga dégg ñaawteef yoo xam ne yow da lay ëlëm nga naan loolu ni ko nit ma ne waaye yow mi xamoon Iblis démb xam taxawaayam ci doomu aadama xam nga ne mën na ko ko defloo loolu muy benn ñaareel bi it am na xeeti ñaawteef yoo xam ne kuñ koy def loo rek dañ laa jékku dañ laa jékku ndax ku xam sénégalaise suñ demee ba naan la ma ngay def ñaawteef bu mel noona danga naan déedéet loolu moom ab sénégalaise mënu ko rajo bi ma ci bëggoon a njëkk interview bi mooy rajo boobu nekk Kaolack ci euh, Léona Niassène mm-hmm. biñ ma ko waxee damay leen man daal loolu mën a guma gëm ne doomu aadama dana ci àgg waaye bi ma defee gëstu yi def gëstu yi def gëstu yi ba gis piste bi ñuy jaarale xale yi nga koy door a mën a gëm Sénégal gi xam nga ne am na ñoo xam dañuy liggéey guddi par guddi rek la ñuy jóg bii Sénégal gi bëri na fi bu tàkkusaan jotee sangu nañ defaru nañ timis dugg nañ dëkk bi. imam yaa ngi wax léegi ni maanaam ay sénégalais. maanaam euh, wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee ñun ñëpp kenn xalaatul woon ni maanaam nit war naa egg. ci di xalaat yenn mbonte. maanaam ba mhm. muy egg ci yenn yu jéggi dayoo yenn niveau yi yenn niveau yi. voilà waaye imaam li ñu bëggoon laaj mooy maanaam nit fan lay toll maanaam ba mën a egg di def yenn euh, ñaawteef yu mel noonu fan la nit maanaam lan moo koy jaral lan la lan nit lan moo koy jaral. ba mu hmm. mën a egg ci yooyu. man dama naan amul kenn nit koo xam ne am na lu ko jaral muy àgg ci yenn niveau yooyu ci ñaawteef amul même jigéen ña gën a sàggan. dara jarul leen ñuy àgg ci ci niveau yooyu mais nag daf day dafa di lii borom xam-xam yi daan wax ne ñaaw téef nañ ko moytu ndax iblis bu fexee ba dugal la ci benn benn ba day wootal moromam ñaar ñooñu bu ñu dajee dañuy gën a am doole pour wootal yeneen ñeent ki nga xam ne nag xaalis la bëgg joxuñ ko yarub diina dem na ci fekki ay milliardaire milliardaires yooyu lëkkaloog seytaan bàyyi bàyyil xel loolu dañuy liggéey ñoom pour lépp la gën a ñaaw dem nañ sax bay tuur deret doomu aadama fii ci senegal gisee ko fi saa yu élection yi jublu see da ngay gis ñoo xam ne dañ leen di sacrifier puune yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen bu boobaa nag su fekkente ne ñaawteef woowu Iblis di def loo xale bi ñu koy woo ci ay hôtel di ko futti muy def yenn ñaawteef yi dañ koy filmer euh, image yooyu day des ci loxo yi ñi nga xam ne ñooy ñi leen di def loo njombe saa yoo xamante ne tuuraat tuur lañ koy mën a tuddee jaamu seytaane googu jotaat na mm-hmm. da gis ku bàyyi ko Israël da nga gis ku bàyyi ko Amérique ku bàyyi ko France ku bàyyi ko Sénégal gi dem xoolaat image yi nga xam ne ñoom la amoon mu dellu leen invité waat bu ñu ñëwee goog yoon nag dañ naan leen ah tey dafa am beneen étape bu ñu bëgg a jàll ak yéen waaye na xaalis bi danañ ko yokk ca lañ dem ba mën leen a sëyloo ak mala te image yëpp ñu ngi ko yor beneen yoon bu période ba jotee buñ la wooyee boo ñëwee buñ ne laa dañ lay lekkuloo nangam ak nangam xam koy nangu ndax ñoom am nañu ñàkk kersa gu toll ni boo leen ko defalut ñu génnee sa image yàq sa der ci àdduna bi nga gis ne kon dana ko def malgré ci ñàkk pexe la koy def ngir lan sauvegarder dignité am mais est-ce que gënul woon maanaam mu bañoon ko def mu sauvegarder dignité am la gënoon mooy mu bañoon a dugg ci structure bi comme kas na ci dugg léegi moom day gam-gamle li di wax gam-gamle mooy day balancer ñaar yi naan saw mi génnaat ànd ak dignitéem kenn du ko xamal ak ñàkk naan saw mi ñu wane ko ci réseaux sociaux yi ay mbokkam yépp jàkkaarloog moom ak jigéen ak kersaam bu gam-gam ñaar yi daan naan saw mi imaam bu ñu la déggee si xutba bi mujj mhm. wax dëgg yàlla wax nga xutba bi am na solo lool ba wax nga si ni sax maanaam li warul tax maanaam ñu ne képp ku dem Dubaay rek mhm. maanaam ñu considéré la maanaam comme kuy def lool waaye malgré imaam wax nga ko sax mais ba léegi loolu dafa mel ni tax na maanaam imaam léegi ñëpp maanaam ragal nañ dem Dubaï Dubaï rek waaw <laughs> ngi noonu Dubaï imaam xam naa boo mënee dellu siwaat maanaam ci conseil yu mel noonu dina si am njëriñ dana am njëriñ maa ngi doon wax ne xeet woo dem dana fa am ñu yàqu seen bopp dana fa am ñoo xam ne seytaane jekku na leen mhm. waaye xeet woo demit nag da nga fa fekk gaa yoo xam ne ñoom ay jullit lañu ay gor lañu ay garmi lañu même da nga fekk sax ñoo xam ne buñ dul ay jullit ay gor lañu ay garmi lañu dara jarul leen yàq seen honneur wala tilimal seen dignité bu ko defee nag léegi contexte mondial bi ñu toll sëñ Bamba dafa toll ci. Eh, xeexu koom-koom te ñii nga xam ne ñooy ñii def ñaaw téef yi lëndëmal relation yi dox diggante arab yi ak africain yi jaral na leen lu ne amut lum leen jaral ay objectif lañ cee wut bu njëkk bi mooy danañ ko def lu yàq deru arab baatu arab dafa am relation ak l'islam kon danañ ko def ngir détruire l'islam loolu seen combat la malheureusement ñaar yooyu ñuy tudd muy arab ak l'islam jotewuñ dara l'islam doctrine la bu bàyyi ko ci Allah subhanahu wa taala mu ñëw jox ko l'humanité tout entière arab bi mën na gëm mën naa weddi kudul dul mën na gëm mën naa weddi ci laa doon waxee nag ne wóorut boroom xam-xam di wax di matale di askanee ñaawtee fii ne arab la arab yaa ko mel demoon naa ci sax bay wax ne waaw ku ñëwoon Sénégal dem salu dem ca tefes ga fekk fa ay xale yoo xam ne ña ngay def lu mel ni li ñii di def du bay mu ne sénégalais yëpp nii lañ mel est-ce que tooñul waa Sénégal ak bëri sénégalais yi fi nekk meluñ ko ma tolloon nag gor yii di tukki ñee nga France ñee nga Amérique ñee nga Dubaï ñee nga partout ñu xëy xëy te bul fàtte na nationaliste yi liñ gën a bañ tey mooy moodu moodu yi ci seen réew yi bëgguñ leen a gis mhm. bëgguñ leen a gis ci seeni seeni seeni réew te ñoo festel na nag dooy moom laa da wax ne mënoo leen a xam naa naari ñooñu su boobaa lépp luñ man ci tilimal tukkikat yi ba jox leen image boo xam ne dañu yàq seen der tukki sax dootu leen jaral dara danañ ko def pour débarrasser wu ci ñoom kon gis nga ne li ñu wala di wax wenn saan ñaari picc ñu ngi ko ciy wut fexe ba ñii nga xam ne ñooy tukkikat yi rawatina jigéen ñi doxee ca yi tukki góor ñu bari doxee ba bàyyi tukki maa ngi ko doon lënkale ñaaw teef yi ñuy dégg fii naan alors xaw ma be benn sëriñu tariyaax uh-huh. nangami soxnaay moodu moodu uh-huh. ngay xool loolu encore sëriñ soxna soxna moodu moodu mu tombeeg événement bi ci la sama xel gën a ñaawee moo tax ma ne lii war nañ ci def ay yeete bu ko defee nag combattant yi ñoom dañuy gën a déterminé ci la leen taxoon a jóg gën a cramponné ci seenu mbaax ak seenu njub gën a fullawu ci seen liggéey dara du leen mën a pàbbi ndax nit ki conscience am lay jëflanteeg boromam mbir mënta jóg rek ña koy def matuñu zéro zéro zéro zéro virgule un matuñ ko cib société ñu bëgg ko taqal ñëpp bëgg a fàbbi ñëpp bëgg a toogloo ñëpp loolu moom nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci yeete pour moom buñ ko mës a réussir moom. macha allah buñ ko mës ñaar la muy ñetteel bi nag Bamba. mooy euh, Afrique actuellement dañoo commencé am ay relation seen digganteeg naar yi fukki at yu mujj yi ak juróom ay junni junni milliards de dollars la ñuy investir fii ci Afrique te Afrique yaa ngi doon jàng la charte de l'impérialisme dafa am ñu leen coloniser woon bëgg ñu des ci troxtaande bëgg ñu ndóol bëgg duñ mos a mënal seen bopp da ngay xool Kadhafi investissement yu am solo yi fi commencé woon nañ bàyyi loolu moom danañ ci ñëw moom ci biir la charte de l'impérialisme incha allah may ma ngay ñëw foofa mm-hmm. Afrique googu nag commencé di lënkaloog euh, yeneen réew yi lañ bëgg a lëndëmal relation yi ba nit ñi non seulement bañ arab bañ l'islam waaye sax relation yi mën fa joxe yàqu yàqu jëriñante gi waroon a am seen diggante mën faa doxee deltu gannaaw moo tax ma ne mbir mi combat la boo xam ne li ci biir bëri na lépp nag li nga xam ne moo ko lal mooy xeex ay culture xeex ay aada xeex ay cosaan xeex ay jikko ay valeur yoo xam ne bëgg lañ ne ne nërmeel ci àdduna bi yaakaar naa duñ ci mos a am ndam bu soobee yàlla sëñ Bamba incha allah alhamdulilah Uh-huh. jërëjëf al imam wax dëgg yàlla tey bu ñu déggee suñu jàngat bi uh-huh. maanaam ku xamul woon réellement problème bi li ko uh-huh. waral sax war na ko xam ndax si biir jàngat bi yaa ngi ñuy xamal ni ñu ni Dubaay maanaam mën nañ wax ni maanaam xaaj xaajaat ba sax maanaam duñu ay naar te maanaam euh, li ñuy wax li tubaab di wax maanaam pays cosmopolite wala ville cosmopolite boo xam ne maanaam dafa dajale ay xeet yoo xam ne dañoo wuute maanaam fi ñu jóge ba hmm. tamit wuute tamit ay jikko hmm. kon xëy na buñ fa déggee mbonte yii nii hmm. maanaam euh, kon du bett kenn ah, waaye li si metti rek mooy maanaam dañ koy def maanaam taqal si naari ba pare maanaam jublu si si ginnaaw sax maanaam yàqal si l'islam te au sax maanaam mu nekk maanaam benn genre stratégie boo xam ne xëy na dañ koy def pour mhm. ñoom bëgg jàllale maanaam seen i mbonte waaye al imaam xam naa ñu ngi egg si suñu cëppaandu émission sax waaye xam naa li mujj lu ñu lu ñu lu ñu bëggoon laaj rek imaam mhm. mooy maanaam imaam bu ñu bëggoon xam maanaam saafara yi mhm. maanaam pour mën a euh, mbonte yi yëpp mën fa jóge wala au delà sax au delà de Dubaï sax waaye ci àdduna bi maanaam lan nga ñuy wax au delà de Dubaï waaye ci àdduna bi sëñ ba saafara bi saafara si benn saafara rek moo am mooy bi suñ borom jox les émirats arabes unis ceddoo fa nekkoon islam ñëw setal ko waaye gis nga ci événement yi toftaloo yi portugais yi ñëw frappé anglais yi ñëw hollandais yi ñëw français yi ñëw ñëw dóor ba ci événement yu mujj yi muy guerru Irak beeg iranien yi bul fàtte na ci sabab bi diggante émirat arabe la uni ak Irak ak Kuwait non ak Iran Iran Saddam moo jógoon ne île yooyu nga xam ne ñetti île yooyu nga xam ne euh, euh, Britanniques yi ñoo ko joxoon euh, iran yi seeni île la ñoom dañ koy jëlaat loolu moo indi woon guerre bu mag boobu bala ca amoon am ca 1990 ñu delloo sañ a xalaat Saddam moomu ci kaw Koweït ba musiba yee ci am yëpp am ca malheureusement réew mu ndaw mii di Émirats arabes uni ci lañ gisee nag ne fi mu ne war nañu am cëslaay foo xam ne dañ fay wéer seen gannaaw moo tax ñu ubbiku tey façon bii ñu ubbikoo ci européens yeeg américains yeeg occidentaux yi ci gàttal pour lan lu leen aar xam nga réew moo xam ne Eh, téeméer boo kontu juróom-ñeent fukk ba yëpp ay jàmbur lañ mm-hmm. kon ñooñu buñ daloon tey ci fukk bi xajuñ ci seen kaw danañ bëgg kaaraange benn mm-hmm. ci seen jëmm danañ bëgg kaaraange encore ñaar eh, ci seeni i koom mm-hmm. jullit bi nag bu demee bay bëgg kaaraange dafa war a xam kan moo yor kaaraange ndax nag wut kaaraange ba ñàkk sa say valeur ndax jar na ko moo dal sunu mbokki réewu jullit ñi ñun fii ci Sénégal la ñuy commencé wut kaaraa français yi te malheureusement lu fi xew ci bêtise ak musiba ñoo ko fi def guerre yi fi tàkk nga xam ne ñoo ko taal kenn mënul la xam toll moo dal suñu mbokk yi yeneen réew yi jullit ñi kon léegi solution bi lenn rek la mooy yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee la bi mu ñëwee doo fekkoon golf bi nuuraan ci ceddo da ngay xool fa mu nekk ca mag moo tax kii jàngat bu ndaw bi ñu def tey war nañu kat mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk ca Makka gunge lislaam ba andi ko fii ci tey ci eh, les émirats arabes unis golf bi mu dugal leen ci l'islam jan doole moo nekkoon ci gannaawam allah subhanahu wa taala fekkoon na fi ñaari superpuissance yu ngand yoo xam ne tey ñoo doon xëccoo émirat arabe uni boobu Bahrain Oman Koweït euh, Irak Saam ba mu jeex ndax bi mu ñëwee nee damay mbubboo byzantin yi pour ñu dooleel ma wala damay mbubboo num silat yi euh, romain yi pour ñu dooleel ma persa yi déedéet daf ne damay mbubboo allah subhanahu wa taala ndax xam naa ne moom rek a yor kattan moo tax réewi jullit ñi pour ñu mucc il faut ñu delluwaat ci seen diina delluwaat ci seen pas-pas te gëm na yàlla jox na leen culture bu universelle boole ko civilisation bu universelle boo xam dañ ko tabax ci kaw yërmande tabax ko ci respect mutuel tabax ko ci respecter nit ñi seeni liberté seeni àq ak seeni sañ-sañ ak seeni yelleef islam ni mu bootee keneen ku mbokkalul pas-pas amul beneen doctrine bu ko mën a bootee keneen ku mbokkalul pas-pas ko defee kon dañuy woo sunu dirigeant yi dirigeant yi nag ñaari ñaari façon yëpp la dañuy woo Ndor muy kilifteefu adduna gi ak goog diina ji ni ñu koy wootee fii ci ci Sénégal gi it kat noonu lañ koy wootee Màkka gee noonu lañ koy wooyee Irak gee noonu lañ koy wooyee les Émirats arabes unis gële te leen nañ leen dellu siwaat ki suñu diina ndax it nag nit ki bu demee ba xam ne fii rek laa mën a jaar mucc adduna mucc alaxira warta am complex teg tànkam ca yoon woowa te mooy ngën ci yoon loolu bu amoon laa ne wax dëgg émirats arab uni ku ñuy may visa ku ne buy dugg si day dugg si ànd nam war a duggee ku ñuy yaatal ci seen suuf ku ne dañ koy contrôler ba am na ñaawteef yoo xam ne du ko fa mën a exercer ful la jooja rek moo des ca ñoom moo des ci ñun ñii moo tax seule solution mooy dellu siwaat ci njàngaleem lislaam dellu siwaat ci njàngaleem rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom kenn képp la yàlla tànn ci mbindeef yi yónni ko ci mbindeef yi mu andi leen am njàngale jëlee ko ci borom mbindeef yi yàlla ñu yàlla delloo siwaat ci xasiratul islam ba jullit ñi mën a tegaat seen tànk ci yoon woo xam ne su boobaa noon bi du leen mën a jaar fenn ba tilimal seen der yàlla mën na ko yomb na ko yal ku ko yàlla def te nag yoon woo buñ ci jaaroon wax dëgg yàlla suñ mbokk yi di dem di tumuranke yi ci biti bañ di leen defloo ñaawteef yi du am lu leen tere la ngi fi mhm. yal nañu yàlla delloo ci sayyidina amiin yaa rabbal aalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam macha allah imam mu mel ni wax nga ko maanaam mhm. solution bi mooy maanaam delluwaat ci li nga xam ne moom la suñu booram digle mhm. def ko te bàyyi li mu tere mhm. waaye imaam mu mel ni buñ la déggee sax yaa ngi koy wax waaye ñun imaam léeg ñi nga xam ne dañuy tuumal naan maanaam naar yi Dubaay ak leneen mhm. et pourtant léeg sax dañuy dégg ci dëkk yooyu ngay mhm. wax ngay wax mooy émirats arabes unis maanaam ay sénégalais yoo xam ne fii lañ dëkk fii lañ juddoo jàng fi alxuraan ba mokkal ñu dem foofu maanaam euh, ci naar yi di fa jiite maanaam ak ay nit yoo xam ne maanaam dañ fiy jóge sax dem di liggéey foofu maanaam kon est-ce que loolu tamit euh, du wanee ni kat ndeke maanaam mbir mi kon euh, lu baax mu ngi lu baax rek ka fa nekk di sëñ Bamba <laughs> nee la mbot nga mënoo ko wutal chiffre. ndax néew gum néew ci suñ mbokki sénégalais yi fa nekk. macha allah ay ingénieur nga fa di daal seen doole. ay grand a nga fa di daal seen doole. import export yaa nga fa di dem a ñëw comme ni nga ko waxee itam jàngalekati alxuraan yaa nga fa. yor fa ay daara yu mag di jàngale yor fa ay jumaa yu mag di ko jiite daara ji am na ay xale fi bàyyi ko ku ci mel ni Maodo. macha allah Maodo mi nga xam ne benn rappeur la woon fii ci Gambie. Mm-hmm. ñëw ci daara ji suñ borom subhanahu wa taala yan kii war ko mbaax mu bàyyi rab. jàng fii alquran ba rafetal ko. macha tey ma nga foofa di jiite di di di jiite fa jàkk ju mag. macha allah alhamdulilah alamin kon mbir mi. xeexum diina moo ci nekk sëñ Bàmba waaye lafa fa nekk ci mbaax mhm. waaye ñoom mënuñ ko énumérer ci lu wér suñ ko bëggoon a <laughs> énumérer lottu nañ ci lu tax nag benn bu ndaw rek jóg mhm. def benn bêtise ñu bëgg a jël loola yàqee ko ñu baax ñu ñëpp macha allah lii dafa leer effectivement jërëjëf sëñ Bamba macha allah kon leer na ni lii li li li tax a jóg ak li nekk ci ginnaaw yëpp mooy maanaam gàkkal lislaam ci gàttal alhamdulilah imam jazakumullahu xayran ci leeral yi nga xam ne defal nga ñu ko tey yaakaar naa ne tey ku dégg sa jàngat mhm. dina gën a xam réellement maanaam euh, lan mooy problème bi dëgg-dëgg ndeke problème bi sax mhm. daanaka li ñuy wax sax daanaka xëy na réyal la rek moo tax mais en mhm. réalité amu fa kon mbokku téléspectateurs yi lii nga lii lañ leen indiloon tey suñu jàngat bi nga xam ne moom lañ bëggoon def ci li nga xam ne moom moo xew Dubaay di ñaanal bu baax a baax euh, al imam Alioune Badara Ndao suñu borom dolli ko sàmm aar te yokk xam-xam bi te barkeel ko di ñaan li nga xam ni lépp li nga xam ne wax nañ ko fi mu nekk lu am njëriñ ñu leen di joxaat dig daje ba beneen incha allah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi